saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa la président des promoteurs Pa Abdou Fall ma taxawaloon diggante Siteu ak Papa Sow ci xët wu njëkk sunu làmb ngay fekk Pa Abdou Fall ma wax combat Siteu ak Papa Sow ba nu puus te tukkeewul ci ay coobareem déjjët giñ fi bëgg a déjjët président Alioune Sarr ak lam ca xalaat moom fa mu njëkke mooy làmb ji dafa bëri ay naafeq ak ñu gëmul dara làmb ji dafa bëri ñoo xam ne bu teyee ñu weex bu subaa ñu ñuul ay nit yoo xam ne ji koy kàkkatar la nu yor nu leen neex mel problème bi làmb ji amee du lu dul jikko yi ñenn ñi amee da cee bëri ñoo xam ne seen intérêt képp moo ci làmb ji da ngay kurti kurti taxawal sa bës boo ko bëggee changer lu ne ñu yekk la ko fu ne ñu dëkkal la fa te booy sonn amul kenn ku la ciy jàppale waaye man Pa Abdou Fall loolee dara laa ci dawul ni may dunde mooy ku ma respecté ma respecté la ku ma joxul cër du la ko jox ba nu ko laajee ndax bi nu fommee combat bi woo nga Siteu wala Papa la mu xam ne mooy amul kenn ku ma ci wow woowuma Siteu woowuma Papa Sow ñoom it kenn woowuma ca damaa bëgg ñu xam ne làmb ji nu fomm du man Pa Abdou Fall maa ko fomm président de la république moo jël ab dogal mu ku nekk ci làmb man laataa ñoo jël dogal bi ngeen duggee Ndakaaru fépp fu ngeen romb publicitaire da ngeen gis ay panneaux yu ñu def Siteu ak Papa Sow te loolu xaalis bu bari lay jar ay millions yu bari laa ca def kon fomm gi ni mu méttee ci ñeneen ñi la méttee ci man te bokkut ak yeneen frais yi nga xam ne def naa ko ci làmb ji li ñuy wax naan jaam pexem yàlla ak dogalam man noonee laa ko jàppee ba mu waxee ca président Alioune la mu xamle mooy loo ko bañ-bañ ak équipe am war nga leen a nangul ne la génn làmb ji niveau bi muy agsi du kenn ku ko fi indi ku dul président Alioune Sarr ak équipe am da di àdduna koy di nga taka ngaañ naan na fi jóge na fi jóge waaye loolee dafa nekk sujet boo xam li ma d'accord kay te nangu ko te jàpp ko mooy nul n'est indispensable amul kenn ci kaw suuf koo xam ne boo fi nekkatul la nga doon doxal du dox décision bu ñu war a jël ci kay doxal làmb ji na doon décision bu ñu togg ba mu ñor xom man damay wax naan lu jëm ci defaraat làmb ji buñ ko sorxo sorxo nan ko teg ci yoon jaarale ko fa mu war a jaar ba mu mat sëkk ka estafam nangu wuta sorxo sorxo kay mooy njaay tin rakku tafaatin gannaaw ba mu tegalee ñaari victoire ci digganteem ak Albouri ak Arobas laataa moo dugg ci saison blanche dañu wax digganteem ak Boy Bawol 2 bu dóor dóoraat moom njaay tin estafam ñoo ñoom dañoo bëgg a seen temps xool fa nu koy jaaral ne ko fa yemm mu jaar fa dox doxam waaye le journal ba xam le foofu mooy ñamu bokkaloon génération yépp am nañu combat laataa ñoo dakkal saison bi mbooleem catégorie moom may buuru àll bi moom ordinateur mbooleem kuy naataangoom ci làmb xam nga loolu ci moom ku ko fekk ci àll bi mu fete la fete yu rëy moom ba mu ñëwee ci performance mu def ak drapeau ya mu gagné dafa ne saison bee ñu génn ñaar fukki drapeau ak juróom-ñaar laa gagné waaye bu 2020 bi naa damaa bëgg lit sans frappe bu ñuy wax le meilleur di ma tudd man ordinateur lambay sama liggéey dama cee bëgg a xaalis bu bari kanu jàpp ne dafa perte xaalis bu bari ci saison bi mooy Ama Baldé proposé woon nañ ko fi 75 millions digganteem ak Siteu mu lànk ba tëdd ci ñàkk ba jëlut digganteem ak Tapha Tine nañ ko li ni toll mu lànk Modou mi mu nangu woon ba jël ko 25 millions képp la ci jotoon a mos ñu njort ne bu nangu ne di nangu ñu bëre loolu la kenn xamagul jërë ngeen jëf mbokk yi li moo nekkoon li gën a fës ci ëtt ñu leen jox di daje ba ëllëg incha allah